es No, do it, Dad. We're going down. We're going down. We're going down. Get up. Get up. Get up. Get up. waaw sant yàlla rek sant yàlla rek maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm ah. doole séeréer suba mooy loolu. sëñ Fallou rek. sëñ Fallou jëla bi jëla fii ba pare Bambo maanaam duma waxuma ko pour dara de xam nga bëri dañuy wax di def naan ay kii xama di foog na ay sëriñu internet affaire yooyu maanaam Bambo uh-huh. tey jii nii man xoola wóor maam Seera Fall combat bi taxaw juróom joxuma ko sarax yi tey moom moo ko doon jënd ak xaalisam maam ah, moom dama koy sant bu baax gërëm incha allah rek noonu la demee maa ngi sant tamit maa Abdou Mara maa Abdou Ndiaye borom ñu dese maa koy sant bu baax barke Serigne Saliou daf may daf may ñaanal di ma ñaanal yàlla muy xool lu ko neex mu def doomu Modou Lo Ama Baldé man maa ne ci kàddu gi lay jeexee la tegee si maa ne VAR lay la solution nga jël ko. la solution. lépp yàlla la li nga ma waxoon. ak laay rek ku taxaw ak ku xool sama échec bi. ma ne bureau bul dof. ba ci oto maa ngi ne dañ koy mu wàcc nga wër ko noonu. si yoon barke Serigne Saliou Mbacke. mais loolu lan la lan la. dama génne tey deux cent mille laa génne def ko sarax te giro giro dafa toog signature. mu woo ma te fayu ñëpp la woon mais daam fu mu daje nga ne ma day daan force foo ko tegoon. dama la paie dimitére nga ñëw ba waaw ma ne Guiro day daan force. waaw ci kàttanu yàlla. foo ko tegoon. waaw yàlla mooy maye yàlla mooy xool lu mu def ci doomu adama. mais combat bi nga waxoon nit du am la set. mujj na am. waaw Modou Ama Baldé Gris Bordeaux. Double Moteur sax day daan Mama Lamine ci kàttanu bu ma da ngay daan te Balla Gaye si kàttanu suñu borom bu neexee yàlla day bokkaat si làmb Balla Gaye dë day bokkaat si làmb moom Siteu dina am wala du am non day bokkaat si làmb daal loolu laa mën a wax Reug Reug Bombardier ku gën nekk xale yaay daan Reug Reug Bombardier ku gën a nekk xale am naa yaakaar ne yaay daan ah kii Zarko nag Zarko non Diène moom nga faral moom laa faral su ma yoree ndam te ñaan yàlla yàlla mooy may dama koy ñaan mu jox ko ndam li. liggéeyu ma si nag. mais non boo liggéeyu ma si mais liggéeyu ma si combat Diène uh-huh. laay ñaan yàlla. mu may Diène Kaïré ndam. macha am na solo ma nga noonu. waaw Modou Boy Niang la. jël bu rëy jël bu rëy. jël bu rëy bu mooy daal jël bu rëy. jël bu rëy ah waxuma Modou Lo de jël bu rëy daal la. xaw ma sax. mooy la solution nga maanaam tey. waaw lamb boo xam ne kenn kenn engagé si. te promoteur bi daa jël xaalisam jox mbëri. en tout cas daal di ngeen gis lamb ju neex. jël bu rëy dina si am. Ah. parce que ñaari mbëri dañu bokk doo gis ay ay cambar cambar. lépp kurus la. ñoom ñaar yëpp. kon combat du am ñun. laa ilaha illallah jël bu rëy. mais mais mais Modou Lo feem yi mu xewal fan yi du tax dara. day ñëw simple noonu. non man nag wax dëgg yàlla gis naa ko man. luñ ma woon mu takku ba jekk nekk nekk fii di wër boo ñaan nii la noo rombee nii Modou di wër yoonu paanu ndox na foo ko gis ndam la mais lamb joo xam ne ñëwagul lu ne xañ su yor paanu ndox mi Modou Lo am na solo ma ko noonu Modou Lo moo yor paanu ndox waaw mais ku ma woo yaay am ndam incha allah rabbi